wasalaatu wasalaamu ala nabiyil huda wa rahma sayidina muhammad almuballig wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baadu ixwata alislaam allahu subhanahu lama xalaqa xalqa lam yaxluqhum abasa qaala subhanahu afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa innama subhanahu xalaqahum li wasifatayni isnatayni awalan li istixlaali al ardi wa istixmaaliha fi axraadina alxayaatiya qaala subhaana huwa alladi jaala lakum wal arda salula wa zawadana subhaana nicmat alquwa walqudurat alaqliya wa nicmat alistimtaa wa idraak almalasat wa amma min nahiyat alwasail wal adawat allati tuinuna ala ixtilaafi alxaaliq almudabbir sawadana subhaana nicmat alaql wa arsala rusul li maarifati attaama an alaql alinsaniya an alaql albashariya almujarrad yajizu an an yadrika xaqiqata alubudiyati lillahi alwahidi alahad fallahu subhaanahu هو الوحيد الذي له الإدراك التام لتبائه الخلائق خلائق يقول سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن هنا فهو الذي يستحق له أن ينظم طريقة الحياة لتبخا لتباعيه الإنسان وتاخاته فهو أيضا الوحيد الذي له الحق في أن يدع الكيفية التي يتعبد بها ولذلك أرسل الرسل وجاءت الأديان السماوية يقول سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا ورسالته هي الإسلام وعلينا أن نتحيد بما أتى عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ولفهمها لا بد من دراستها وتعلمها ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم ويقول خادم الرسول صلى الله تعالى عليه وأن رضي الله عنه وأرضاه في الحث على التعلم فسارعوا ترا إلى التعلم wa jaahidu nufuusa bi tafahumi wa man nahaakum ani taallumi fa huwa xalifatullahi min mujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljasaai walwajal is kullu man fi samani mana min taallumi fa innahu daa لبدعة شنيعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم سابه خلل عباد الله اتقوا الله واجتهدوا في تعلم أمور دينكم واجتهدوا على معرفة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام وطريقة المريدية وجاهدوا على العمل بها يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم